dóor dóor fañ ko sóob di tuubali dana leen waaye yéen askan bi waaw tribune yéen kaay ci kaw administration liste opposition yi xam ne ñu ko rejeté ni waaw dama ne la justice looloo tax général sous-préfet Daneer Sénégal waaw dogal bi xoolal ma ci nañ ko day mu dërbi ñaata kenn ko gëlé loolu dal la jaxé ci ci wàllu nguur gëlé gañoo ma seen ñen ñoo xam te ndar xoof ka tegol su dama la waagal sa bopp day wa dal di déposé nak seen recours te ndar ga yow dëgg la ginaaw ci ay résultat xam ko askan ko dañu opposition ba ta boppam woné ni la nga xam yo ngir ñu sokki ne ko réseau yi waaw magistrat yi dañu tamit li seen su bokk yaakaar ya dëgg la yow askan ga ngay jeex jeex may na waaye gis nga moo xam ne opposition dana nañu fa waa gëm sa bopp kalaame bi nga xam ne laa defoon jëkkuur ta waaye askan bi dañoo bañ moo tax song nañu ak waa këram nee nañ li si opposition bi ñu ko suprimé Babacar Diop nee na élection locale du am ci mim réew xanaa li si opposition bi yëpp daal di cay waaw Ousmane Sonko nee na kalaame opposition bi day waaw laay wolutul woote gi dugul ci nopp ku tax wala woote gi ñu yéene ñu ko de ndax ku appel waaw daal di ngay boole seen sa Abdoulaye Tall ci élection ci doon mu de ca fan Sonko ci nee na cour d'appel jox nañu ko ca nee na candidat wu ndar ba di Abba Mbaye daal di rawate gelo yow yaa ci xew ci sa fa ca jabel ca ganjo ca tan nok de ca fan ko yokku ca te ci parce que yow yaa ci mu ko gagol sud parlementaire ci département ci ay élection locale wala élection député wala ay Déthié Fall yoo xam ne dañu ko organiser ñuy def leefu politicien bi ba bëgg a éliminer ay candidat yow ci gagné Ousmane Sonko dama jàng looloo tax ndax bi nga xamante ne taxoon nañ ko seen liste ñoom waa wala ay département réew ngor pour dafal ba day tax na dëgg ñoom ñoo ñee loolu ca opposition ba plein ba yéene kaay ne ñoo koy defal gis daal préfet ak sous-préfet day loolu waaw gars yi les forces de défense et de sécurité ñoo ciy dimbali préfet ak sous-préfet yoo tam li xoole liggéey a la wax ca région Thiès Khalifa Sall ñama àndal mu gën a ñoo terroriste jaay ak ca Dakar Ndiaye Diop Mali ko ñama ca yeewi askan réew laa la wax dañu jaraaf su njaay ay liste coalition opposition bi yu bari ba ci liste Adama Faye bii nga xam ne tegoo tey ne ñu tegul fenn xam naa ne tribunal bi dana leen boole ci élection yi yéen kaay parce que xoolal ma dossier waaye wuu batal nag maanaam préfet ak sous préfet mooy mandargaal ne suba wu naax ñu koy ajaat naan ajaat nañ ko sur ça non Ousmane Sonko ba leen wooteel ngir waaw préfet day en merde tribunal bi na fee parce que nag waa Benno Bokk Yaakaar seen avocat yi loolu waaw ngir nee nañu weeru ma leen indil leen ñu koy fii ak dootu fi amati bu amee ngeen wax waaye gis nga loolee eh, procès waaye bu ñu sukkandikoo ci ñoo xam waaw bàgge lool wàllum justice eh, magistrat bi nee nañ loolee du ko candidat yeewu woo premier sous premier bu Dakar waaw nee na complot politique bu salte Dakar ñu ko mooy man di xam enquête complot politique boobee xam nga opposition bi léegi lan moo leen solo waa ndaw ñëpp yu bare moom dañoo maîtriser wul rek seen résistance bi léegi solo fo dell jël candidat bi la kaay de joo ngir coalition yooyu askan wi kay man waaw xeex ba débattre campagne te suñu xam dara la ginnaaw na di sa mbuur dootu ma ñëw wuyu si laa la wax dossier bi nee na may wax kay dafa weddi préfet laa la wax damay def war Macky tamit waa këram weddi nañ ko de ak si foo ubbil Barthélémy Dias kay Macky xoolal ma ñi nga xam dañoo def ay sondage man raw leen xoolal ñi nga xam ni kat duma kër fale lañ jël moo war a ko ne sapp bu nañu tarti tarti jaar fa Dakar Times Barthélémy Dias waaw suba ci xoolal ma ñu ko jaaw nee na jël ba sa complot politique Souleymane Ndoye Talla Sylla Abdou Sangé Mamour Diallo Allah yërëm Mary Teuw Niane moom juróom benn fukk ak ndaw yéen kay la waa gëm sa bopp xoolal ma président ak Abdoulaye Fane Touré bi Mariama Sarr nee na Baba Tall Astou Ka seen pël jëmbal mais dem ca Louga fële seen i condition bi sant fële boo dajee ni kaw na daal Sénégal ne gis nga Aliou juróom la juróom ñaar mètre yu am na dañ leen waaw boobu daal la maire Medina Bamba Fall waaye dana xalaat fële ñu ne faa ñu ne ko ca tamit dina ko na sëggee jawaay day jaajëf ko sa borom seetaan man Fall liste bi dina bokk yaakaar proposé ngeen complet bi matul déclaration individuelle te mooy yéene kaay atekat yi day jubbanti nañu préférence la ko tul déclaré yéene kaay maître Malick Sall ci parti bi Sall bañ wax na du dem wuti le premier ca waagam waaw nee su liste benn bokk yaakaar lu tax su système tam ñu xool maître moo nekk ca biir yéene kaay te man nag li may xelal bari tu jaas Benno Bokk Yaakaar ca Louga moom tas rapport waaw daal di ne tuumaal opposition bi la ñuy tuumaal ne daal génne ay duy masque wu naan ay opposant lañu jàngoro lañu ci doro la Ahmed Samel Sarr ko ndaw yi bokk ci maam ko wat Diop moo ko remplacé waaw nee na groupe violeur assassin ay sàcc te daal réew mi ñoo da leen leer na mun juum nañu dama ko Sénégal waaw waaye fi ko ba ci parce que ba élection yi lor ay grenade Kédougou léegi soppeeku na wax ko woon dara lu dul watu na lekkat ko bref ñu daal di koy bombardé ay grenade critique yéene bu tànn Barthélémy Dias élection locale fi nekk information ci mën a fonction la kilifa réew mi dama est-ce que Antoine Diome mi mën naa organiser élection yii aaroona ko mën doo ministre yi mu bokk APR ci bokk sóor dal na ci kaw kilifa yi réew yi askan bi nee na woote di ne xale Kër Massar ak waaw waaw mais ñàkk baraa gi nga am kon tudd woo leen ay wóyoo fa doon di def l'observateur laas Aminata Touré coono li ci biir wax la Sarr wax ci Amadou Ba mais article de kaw la jëlee ñu mu tuddee nee na ñoom ay militaire la jox li nee nañ jox nañ carte blanche nag lii am lu mu dem ndax mais dafa nafi sa jox si yow ci kaw la googee ci libération yële wax soo bi nee na ah, président autoroute à péage bi lé ak Pape Demba Bitèye soit bu ko ci lexique bu baax ma ci loolu le la mu jaar docteur Bamba Diaye kat waaw nee na ñàkk tolloo la assemblée nationale tey ku ko jox décision li bi dëgg la Birane Ngaye Wade nee na dooleel élevage mais mooy dooleel France nguur gi daal projet yi waa bi ci coowal Pastor ca jamono joojee ni nga xam ne kaay na ci biir réew mi ñu tëjee leen ne la docteur Gueye rey boppam rey tam ay doom waaye yow Cour des comptes rapport 2010 2017 la moom rey ba léegi ne rey koy xaay na ci réew président Mamadou Faye premier président Cour ay tuuma ne ko doon tuuma ne lay forcé ay doom ak soxna ne lay wéy seen ñoom ci lu mu wet bi ñuy wax seen divorce bi moo jabar jabaram joojee nga xam ne kenn noonu na kër ga waaye loolu ko ne ko dañ ko waxtaane say bi tas bala bay bañ kayitim fi bi ne bàyyi ko testament bi waaw nee na li mu yor ci alal yi jabaram ji nga xam ne moom la tas weeru mai bi ko tase mai 2023